Diop Diop yow xam nga yow yow yow tey man sa jël sa téléphone defar woo ma mais bul def yooyu wax soog a xam nga yow Diop man. bi nga nekkee ci sumbulu di ko sëyal sëy bu rafet. yaa ngi dégg di sëy sëy bi ku la laal ma jug dal ci kawam. yow may sa arme. waaw ah, d' xam nga yonent yàlla Muhammad sax am na problème ak soxnam lii problème la jëkkër ak jabar dañuy jote noo. waaye nag ah Diop yow tamit nag. fase fase nag dafa ëpp nag. kilifa nga fase amul de. ah fase amul. non Aji day wax ah déggoo Aji Mass li mu wax xanaa xanaa déggoo mu ni ba ku joteeg sa jabar rek xam nga nit mën nga joteeg sa jabar mu dem mais fase amul. mi kon aada moo fenkat la jóob. non aada non fase amul de non kon fase goo. non man. moo yow eh, eh, eh, léegi gars yi kaa bi jeex na. bii moom révélation la Ablaye Diop nga ni lan. yàgg sumbulu. non loo wax. non non xoolal. non soo ko. Hmm. gis nga gis nga gis nga jëkkër ak jabar boo gis dinañ jote oh. waaw jotee dina am ci couple boo gis ci àdduna xañ na nag daal daal di nag ndeysaan wax yi bari naag lépp yaa ngi koy dégg mais nag yàlla xam na ko ak yonent bi de moom xam na man xam na bàyyi leen nag ñuy wax rek. ah fase amul. ko bàyyi ñuy wax rek. waaw amul aji Mass moom lu tax mu génne ne eh, divorce am na divorce mooy mooy tàggatoo ci français divorce. xam nga maa xam nga xam nga maa ngi dégg benn audio Adji Mass. Mhm. non soo ko dimbali ma rek bu ko teg nag soo ko dégg nga. ma ne ko teg nag dimbali ma rek yow sama waay nga. oh Diop Diop Diop Diop Diop Diop dama jàppoon ni yow dangay seetaan sama live moo tax nga woote. day deqi la waaw non c'est fii loo fi wax jàll na. maa ngi live nii. fii loo fi wax xam nga ñaata Sénégal ñoo lay seetaan Abdoulaye Diop Xaas. deux mille huit cent personnes ñooy seetaan xaaral ma capturé yónnee damaa gis nga bind Sava ah, waaw parce que dama jàppoon man ma woon man ma woon vocal. mais xoolal moo tax moo woon. trois mille personnes ñoo lay seet ñoo lay déglu nii. suñu waxtaan bi ñuy wax nii. li nga jot a wax nii. ne fas woo sumbul. gars yi dégg nañ ko de. déggoo ma la yàlla yàlla defal ñëpp jàmm. ma ni na nga jëli sa jabar. jëli sa jabar laay. déggoo ma la yàlla yàlla yàlla ñëpp jàmm. amiin yaa rabbal kon nag te Masana a waaw xamoon naa ni doo ma doo doo doo doo doo wàcc sumbulu bàcc li. Adamo yaa mën a duul. barki rasulilaay diggante bii diggante bii maanu leen ci dégg ngeen Ablaye Diop xaas lu mu wax. Céri sumbulu bàcc li. nee na moom dafa am problème ak jabaram. képp ku ne ci néegu sëy bis day ñëw nga am problème ak sa jabar. waaye Adji Mass nag li mu wax ni Soumboulou ko wax tamit loolu beneen kaala de gaay Adji Mass li mu wax tamit lu leer la de est-ce que Ablaye Diop nekkul di ma dóor Diop kaas mii ah nee na fasewul de Soumboulou lii moom boo ko déggee moom jël say bagage dem ñibbee la war jëlal say bagaas sedd bi metti na trop xam nga ne Ablaye Diop xaas dugg ci live fu sokono stress leeral kaa bi mu leer nañ xam nga ni capot baa ngi nii aadamoo da ngaa dof rek nga ne yow yaay boo sóoro yow démb ba léegi yaa ngi woo Ablaye Diop xaas mënu laa wuyu du wax ak yow doomeeraam nga moo tax du wax ak yow barki démb ba léegi yaa ngi koy woo di wut loo duulal Sénégalais yi fii la dugg sama live leeral lépp waaw waaye nag dañuy topp kaa bi ba tey sumbulu ci boppam nag moo ci des nag sumbulu bàccali wooteel na gaaw bu dee changé woo numéro mën naa la woo bu dee da nga changé numéro ci diggante bi nga wax ma ndax bu ngeen xuloo ak seen jëkkër yi rek da ngeen di changé numéro xaaral ma essayé xool ko suba lu bàcc li sempre ñoom bu ñu bu ñu bu ñu kii ak seen jëkkër yi rek dañuy dañuy kii dañuy daal di canc numéro yi kay waaw ñoom moom bu sey bii neex rek numéro yi duñ ko changé xoolal rek lu ne yàkk naa ko Ablaye Diop xaas lu ne rek yàkk naa ko Ablaye Diop xaas rek bu ma baalool du baax. cagabeeg day tëddee ñi muy fajag man tamit man man tamit man bala may wax war naa di teey di tiit di wax de moom baaxut di nga wax ba làmb say xuur day ni xuur yi ndax samay xuura waaye man moom wax rek laay wër sama yoon nekk ci de man moom kay lu lu nekk information rek bu ñëwee ma jàllale ko waaw buñ ko jàllalee ba pare nag ñu doog a vérifier ba xam affaire bi leer na wala leerul ñun daal dañuy ñëw rek tëll waaw affaire bi damm ñu doog a xool sumbulu xaaral ma seet numéro sumbulu bi may leen ma tuuti waay bàcc li sempre ah ab lay de nee na moom wax dëgg yàlla <laughs> bàyyiwul sumbulu de <laughs> sumbulu nag du jabar jooju nga xamante ni da ngay ñëw nii rek di ko fase de <laughs> sumbulu sumbulu du jabar yooyu ngay ñëw nii patam patam nii rek nii rek nii am ak ñoom doom rek jallax fee de. Gambien sénégalais la la waaw sénégalais cent pour cent oh numéro bi nekkatul whatsapp barki Serigne Babacar si maag numéro sumbuloo ngi nii mais nekkatul whatsapp gis ngeen nekkatul whatsapp amatul whatsapp fii changé na numéro Diop xaas yónnee ma numéro madame waaye Ablaye Diop sëñ Diop xaas yónnee ma numéro sumbulu yónnee ma ko bu dee yaa ngi may dégg wala aj maas géeg yónnee ma ko rek ma woo sumbulu benn yoon ñu xool nu kaa bi dinaa la woo doomu xaraam ji dinaa la woo nga ñëw leeral xaaral woo ko doomu raam ji Adamo dina ruus tey tey laa koy wan ni maay baayam <clears throat> moom day yàqamtee duul nelawul démb nelaw defu ko boos dee néegri man boos dee doomu raam laa ko woowee <clears throat> ak ka mën a maa ngi koy woo li nga fi duul allo salaamaaleykum. dugal ma ci live bi ma maa ngi ci live bi dugal ma ci live waa defal demande defal demande. doomi ji. tey dinaa la dugal dugal aji maas aji maas. xaara xaara sax ma woo maas. mu képp lim bi tey laa leen di xaara ba ma pare. yéen comprendre leen sax. ana Adamo xaara. defal demande ana nga. waa mu ngi nii. man maay boss bi. maa information yi wóor. ñaata jour yaa ngi woo Abdoulaye Diop Kaas. maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ziar leen bëggee yéen ñëpp di ziar bu baax a baax a baax. waaw. Mm-hmm. Euh, Soko dèjà yow ba ngay woo Abdoulaye Diop Xaas xamul ne woon yaa ngi live kilifa gutal na Abdoulaye Xaas boo ko woowee ci live. non man dama sama laaj xam na danga may may ma daaneel yaa ma invité après wax ma déglu la man ndànk ok bu mbir amee da ngay gëm nga gëstu ji ay information yu euh, gis nga déglu ma rek gis nga Abdoulaye Diop xaas kilifa la. yaa ngi dégg fii kenn mënut wax ne. rek aji maas aji maas dafa juum. même bu fekkoon ne sax sumbulu moo ko wax loolu warut a génn ci plateau télé di ko jàllale parce que kenn santu ko ko. kenn waxu ko ne ko waxal ne danoo tas li mu def nii du lu rafet. man man sumbulu laa àndal parce que rafetul. yaa ngi rafetul dama ne la même bu ko sumbulu waxoon tey jii moom moo dugal boppam inter bi yëpp aji maas la ñuy waxtaane parce que tas déggoo ko ci gémuñu Abdoulaye Diop Xaas déggoo ko ci gémuñu ki nga ah. si nii moom mooy sumbulu moom moo def plateau am wax am waxam mu ne dèjà am na fu mu defee faute ndax nee na euh, sumbulu nekk sa kër ñu taj la deux ans deux six mois mënoo génn mënoo dem dèjà loolu ay fen la parce que deux ans deux ans yi six mois dem leen ngeen seetaan wiiri wiiri wiiri wiiri ba mu ba mu arrêté yaa ngi dégg ba mu arrêté lan takk sumbulu ba nu takkee sumbulu ba nit ba ni takkee sumbulu ba mu bokkee wiiri wiiri ba mu jeex dafa bokk suwaa dem leen xool commencement suwaa ngir xool vidéo yi da ngeen gis ne mi ngi doon théâtre ba suwaa arrêté la sumbulus arrêté wax day leer dugg mën nga woote ci téléphone bi waaw wax day leer ba suwaa arrêté ci la sumbulu arrêté dem leen ngeen seetaan suwaa yéen ñëpp mi ngi ci néegu sayam ba suwaa arrêté la sumbulu arrêté dem leen ngeen seetaan yéen ñëpp ay vidéo sumbulu mais du dëgg léegi dafa am lu mu la bëgg a xamal gis nga animation dafa am loo xamante ni boo ko dee wax da nga koy xoolaat. rafetul kii dafa juum. ñaari ñu réeroo. déggoo waaw mais dama ne la dafa juum. même ko déggoo ma ne. déggoo ma ne. waa seen ànd moo jiitu sumb. wax naa ko de wax barki yàlla wax naa ko xam naa lépp. ñoom ñaar ay ah, xarit lan. wuy ma ñoom ñaar déglu ma. waaw kii bokkul ak yow. xam naa waaw da nga may déglu ñoom waaw. kii la. waaw ba na doon na doon waaw doo ma déglu bu sumbulu bàccali non li laay bëgg wax da may may ma àggale ko waxal bu sumbulu eh doo ma may ne damaa fàtte ni sama live nga ne waaw maa wax waaw gis nga Adji Mass Gueye waaw digganteem ak sumbulu sa yoon da cee nekkul yow da ngaa ah. ma wax ko parce que mhm. Adji Mass bu sumbulu soxla woon benn tànku nday jooram mu dagg ko tapit jox ko sumbulu bàccali ndax dëgg ko gore kii dañoo yàgg très bien léegi ba naaw na sumbulu moo ni ko waaw yow Adji maas mu ngi mel rek Ah, mu ngi ah. mel ni nga jël. nga nga ñëw ba ci Adamo. ne ko Adamo Boss Day Negri. am na benn cas bu am. yi yëg. ok Adamo nga xamante ne day xëy di naan ngelaw. ok boo ñëwee jox ok mais da koy lekk. c'est ok ok may ma. ok léegi may ma léegi. Mhm. aji ma senegal yi. même bu fekkoon léegi nag may ma de ngir yàlla nag sànq ba tey yaa ngi wax ma noppi la waaw. ah Sénégalais yi may seetaan 4000 personnes yi seetaan Soko. Mhm. Euh, aji maas même bu fekkoon sumbulu moo ko wax ne ko xaritam la nëbbu ko dara ne ko. sa frère la dara war na xew sax nga jël sa téléphone defar woo ma mais bul def yooyu wax soog a yooyu. non xam nga yow Diop man. bi nga nekkee ci sumbulu di ko sëyal sëy bu rafet. yaa ngi dégg di sëy sëy bi ku la laal ma jug dal ci kawam. yow may sa arme. waaw d' accord xam nga yonent yàlla Muhammad xam am na problème ak soxna lii problème la jëkkër ak jabar dañuy jote noo. waaye nag ah Diop yow tamit nag. fase fase fase nag dafa ëpp nag. kilifa nga. ah fase amul. non Adjumas day wax ah déggoo Adjumas li mu xanaa xanaa déggoo mu ni ba alxawi maanaam ku joteeg sa jabar rek xam nga nit mën nga joteeg sa jabar mu dem mais fase amul. mais kon aada moo fenkat la jóob. non amul de de. kon fase goo. non man. moo yow eh, eh, eh, léegi gars yi kaa jeex na. <laughs> bii moom révélation la Ablaye Diop xaas nga ni lan. yàgg sumbulu. non loo wax. non xoolal non soko. Hmm. gis nga gis nga gis nga jëkkër ak jabar boo gis dinañ jotee. oh. waaw jotee dina am ci couple boo gis ci àdduna xëy na nag daal daal di nag ndeysaan wax yi bari naag lépp yaa ngi koy dégg mais nag yàlla xam na ko ak yonent bi moom xam na man xam na bàyyi leen nag ñuy wax rek. ah fase amul. ko bàyyi leen ñuy wax rek. waaw fase amul aji Mass Gueye moom lu tax mu génne ne eh, divorce am na divorce mooy mooy tàggatoo ci français divorce. xam nga maa xam nga xam nga maa ngi dégg benn audio aji maas. Mhm. non soo ko dimbali ma rek ko teg nag soo ko dégg nga. ma ne ko teg nag dimbali ma rek yow sama waay nga. oh Diop Diop Diop Diop Diop Diop Diop. dama jàppoon ni yow dangay seetaan sama live moo tax nga woote. léegi deqi. waaw non si la. loo fi wax jàll maa ngi live nii. fii loo fi wax xam nga ñaata Sénégal ñoo lay seetaan Ablaye Diop Xaas. deux mille huit cent personnes ñooy seetaan xaaral ma capturé yónnee la. damaa gis nga bind Saba ah, waaw parce que dama jàppoon mënuma woon mënuma woon vocal. mais xoolal moo tax moo woon. trois mille personnes ñoo lay seet ñoo lay déglu nii. sunu waxtaan bi ñuy wax nii. li nga jot a wax nii ne fasawoo sumbul. gars yi dégg nañ ko de. déggoo yàlla yàlla defal ñëpp jàmm. mani na nga jëli sa jabar. jëli sa jabar waaye. yàlla yàlla yàlla ñëpp jàmm. amiin yaa rabbal kon nag te Masana Diop. xamoon naa ni doo ma doo doo doo doo doo wàcc sumbulu bàcc li. Adamo a duul. barki rasulilaay diggante bii diggante bii maanu leen ci dégg ngeen am Ablaye Diop xaas lu mu wax. Céri sumbulu bàcc li. nee moom dafa am problème ak jabaram. képp ku ne ci néegu sëy bis day ñëw nga am problème ak sa jabar waaye Adji Mass nag li mu wax ni sumbaloo ko wax tamit loolu beneen kaala de gaay Adji Mass li mu wax tamit lu leer la de parce que Ablaye Diop nekkul di ma dóor Diop kaas mii ah nee na fasewul de sumbalu lii moom boo ko déggee moom jël say bagage dem ñibbee la war jëlal say bagaas sedd bi metti na trop xam nga ne Ablaye Diop xaas dugg ci live Sokono stress leeral kaa bi mu leer nañ xam nga ni capot baa ngi nii Adamo da ngaa dof rek nga ne yow yaay boo sóoro <coughs> yow démb ba léegi yaay ngi woo laa Diop xaas mënu laa wuyu du wax ak yow doomeeraam nga moo tax du wax ak yow barki démb ba léegi yaa ngi koy woo di wut loo duulal Sénégalais yi fii la dugg sama live leeral lépp waaw waaye nag dañuy topp kaa bi ba tey sumbulu ci boppam lag moo ci des nag sumbulu li wooteel na gaaw bu dee changé woo numéro mën naa la woo bu dee da nga changé numéro ci diggante bi nga wax ma ndax bu ngeen xulóoweeg seen jëkkër yi rek da ngeen di changé numéro xaaral ma essayé xool xool ko sumbulu bàccali sempre ñoom bu ñu bu ñu bu ñu seen jëkkër yi rek dañuy dañuy kii dañuy daal di canc numéro yi kay waaw ñoom moom bu sëy bii neex rek numéro yi duñ ko changé xoolal rek lu ne yàkk naa ko Ablaye Diop xaas lu ne rek yàkk naa ko Ablaye Diop xaas rek bu ma baalool du baax caga beeg day tëddee ñi muy fajag man tamit man man tamit man bala may wax war naa di teey di tiit di wax de moom baaxut di nga wax ba làmb say xuur day ni xuur yi ndax samay xuura waaye man moom wax rek la